makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo day dagan tey tegaloo Cheikh Abdul Karim borom makaarimal axlaax murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du ko xam Cheikh Abdoul Karim Serigne Abdoul Karim Cheikh Abdoul Karim def leen nii ñu màggal borom makaarima lax-laax doy loo na Cheikh Bamba ba ca dëkk ba di am teraanga tedd lool ngir barke ba doy loo na Cheikh Bamba ba toog ci dëkk ba di am teraanga te lool ngir barke ba rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya borom makaarima laxlaax rafet ji ko waral mu doon kuy tërbiya ku kenn bëggul mu jël defar ca daara ya ku man na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer ku mën na def kenn aayewul gindi kuréer takkal ko soxna ak mu jëm xolam baleer paaka mbaa mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca rey laxas muy waaja daa yor paaka yor paaka yor mu yor yatam baatin ba cëb këlam ca raxas xelam ni leen ko jaajëf Cheikh Abdoul Karim ni ko jaajëf te ni ko jaaraama waay doomi Serigne Fallilou Mbakke mat na waay dimul dikkul te waaju jaaxle seetu ko saabu fa bàyyi ko gindee ko sant ko sëriñ Abdul Karim demul dikkul demul dikkul te waaju jaaxle seeti ko saa fa bàyyi ko gindee sant ko day wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñi dundal te kenn deful daraam day wër ci àll bi joxe teraangaam boole ñami dundal te kenn deful daraam sëriñ Abdul Karim ku dem këram ba gis na muy dafay ganam waxam ja day rafet te day dëppoog jëfam day wuufe ngir wayaf lu baax da ko mane yërmaane jim am ci mbindeef yi lay wane Cheikh Abdul Karim day wuufe wayaf lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindee fi lay Abdul Karim day wuufe wayaf lu baax da ko mane yërmande jim am ci mbindeef yi lay wane te gin yab mat na ngor ga mat ak jom jaa te am na kersa way na baay ja doom ja te gin ya mat na ngor ga mat ak jom jaa te am na kersa way na baay ja doom ja yiwe na yeewu na yeyoo na kañ xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna yiwe na yeewu na yayoo na kañ xanaa jubooki mbokkam law la cet xam adduna Cheikh Abdul Karim woyof na teey na muñ na xol bayaatu na te am na fayda di bañ lu jombe naa Cheikh Abdul Karim woyof na teey na buñ na xol ba yaatu na te am na fayda way di bañ lu jombe na ku buule yi jikko di sang jaadu na tey rakki Cheikh Abo Cheikh Abo mu baax mi sell na ku boole yi jikko di sang jaadu na tey rakki Seex Abo mu baax mi sell na fi laay taxaw tallal samay loxo nga ñaan fi laay taxaw tallal samay loxo nga ñaan fi laay taxaw tallal samay loxo nga taxaw tallal samay loxo nga ñaan nu sax ci diine ji. léegi liggéeyub Serigne Fallou bii nga xam te ne sëñ Abdou Karim da koy yeggale di ko def mébét ko du la ko sante yow doo ko deful xaroo ci sa tànk tubéy jinne yey wàcc ñëw liggéeyal ko sëñ Abdou Karim ba pare ñi nga xamante ne ñoom lañu fooge ni amuñu kàttan ak liggéey ko ñooñu biñ fi dikkee tey ñoo ñoo man ci liggéey bi ndax liggéey bi Serigne Touba doo ci dee sóobu ak jom ak ngor day dem ba dafa mel ne dañ lay pikiir dos boo xamante ne danga mel ne ko dorogew li ngay def dootoo ko tey li ngay def dootoo ko attan say ngor ngay demee ak say jom dinga ci def ba jëf ci loo xamante ni xale bi am fukki at ak juróom ñett amu ko ci liggéey bi Serigne Touba moo demee noonu doo déggee mu ni antal karimu annal xadiimu dëhëral udiimu fii ka sanaa yi amul woon kàttan ga amul woon doole ja amul woon at ya mais bëgg ak cofeel gu mu am ci Seydina Muhammad moo tax mu jàkkaarloo moom ni ko man dama lay liggéeyal diirub demono mooy salaatu sitta bi mat i sitta taxti i baata maati daay Serigne Touba ko wax liggéey Serigne Touba ko jiitul boppam li mu defal Seydina Muhammad liggéey ko ba ñu ciy jariñu ñun xaajaguñoo jaar fa Serigne Touba tegoon ab tànkam. gërëm Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu Serigne Falilou ci jàppandal gi mu ñu jàppandal ak tawféex gi ñu defal. fépp Cheikh Modou Fadal Mbacke xàlloon rek dimbali nañu xettali nañu fa ban teg fa suñuy tànk loolu nag tawféex mënu ko weesu léegi rek ci biir ay kàddoom mu ngi soññaan mbokki taalibe yi di leen dàggiwaat ci liggéey bi ci nun ko gën a jàppee ci nun ko gën a ñoŋalee ci waar wi fexe mu mat ngir kenn ku ci ne nee na xamal na nañu léegi liy fere yi di metti metti metti metti wér-gu-yaramam moo ko gën a metti ñu fexe góorlu nu liggéey bi mën a pare góorgóorlu ci bu baax a baax a baax a baax mu mel ni suñu aadama mi moom sëriñ bi dañoo boole muy doon ab bunt boo xamante ni jaaruwaay la yeggukaay la sànq di ñëw dama koo gis di ko jëw ma ni leen diir say bëgg-bëgg sëriñ fa yéene koo jam mooy sëriñ bi bu la wooyee fii ci tool yi tool kenn ku ci ne xam na ne ay kilim newu fi poussière fi ne ak naaj wu tàng jër jër jër jër jër tant yu tàng jër jër jër jër jër ay ileer ak i gopp yu tàng jër ak i loolu nag li fi li daam lu fiy maye ndax sëriñ Saliou doon koo mës dem di ko siyaare ji mu ni day na baax di ñëw rek waaye ñaan gaa nga ca tool ya ku jëf daal di jël léegi sëriñ baa ngi koy confirmé ku jëf daal di jël ku def dara faaw nga am dara liggéey bi lépp mi ngi mi mooy mooy mooy fee ndaxte sëriñ bi lii moom liggéey moo ko may suñu aadama mii lii moom liggéey moo ko yàlla def na ñu ñëw ci liggéey bi di liggéey suñu Abdou Karim ba yàlla def euh, ñu xamanteeg Cheikh euh, Adama Sène mi waaw suñu premier communication ma moom sëñ Baskan moo ñu paas au téléphone sëñ Baskan nekk tuubaa man ma nekk cees mu paas ma ko ci téléphone mu ne ko ñii de soppee sëñ Abdou Karim lañu xëy na yàlla def na gisante bi bariwul ba bi ñuy gisantewaat euh, cantu ko sëriñ Mbay Mbuub la ñu bu Thiès sëñ bay Mbuub nekk koo xam tam jànkal la ci soppee sëñ Abdou Karim yi yàlla def fa xame ba ba jëmb caam mi tamit egg ak moom ci benn niveau boo xam ne niveau bu yéeme la macha allah loolu nag ñu koy sante yàlla di ko sante sëñ Abdou Karim parce que moom mooy branché ay nitam cheikh bi tam nekk ko oyof gis nga ni mu toogee nii wax dëgg yàlla nitu jàmm la mi ngi ree te mënoon naa mel leneen te melu ko kon bu nu ñëwee tey dal fii ci yaatuwaayam la ci sopp gu mu sopp sëñ Abdou Karim Mbacke moo tax ñu sopp ko ñu ñëw nag fasante kóllëre ak moom soppee sëñ Abdou Karim bu Cees yi fasante nañu ak moom si yéenee ànd rek ci liggéey bi waaw mu amat ñu rek ba fi mu egg rek ñu ñu egg fa incha allah. tool yi yaatu na liggéey bi bari na waaye nit ñi li naaj bi tàng tàng ak li dëkk bi di sore sore ak fa ñu jógee kenn ku nekk ngi feeñal pas-pas di feeñal yéene di feeñal ak njàmbaar ngir sëñ bi am liggéey bi ni mu ko bëggee euh, liggéeyal sëñ Tuubaa nag ku ci bokk ku nekk boo koy defloo ay nit li koy xamal nit ña mooy seenub liggéey duñ ci sonn. ndax Serigne Touba dafa wax ne barakatun bi nay li xayri ni'ma tunsil muridina ana alxidma képp koo xam ne ki yaa ngi may liggéeyal ci liggéey bi may liggéeyal barke dana jóge ci liggéey bi di dugg ci sa biir xol barke boo xam ne moo lay fàttaloo coono liggéey bi loolu nag defe naa ne ku ñëw ci tool yi yëngu ko kon alhamdulilah